تقبلوني إذ وصلت بسي فقلت لهم بشرا ببشر أي صبا وكل فتى أدى إلى البر حقه ca mbokku internet yi ñuy bàyyi xel di ñu safoo saa su nekk contentement la ñuy amaat saa su nekk di leen dégtal li gën a fës ci li nga xam ni moom moo di ndaje mi de comme ni ngeen ko gisee jamono ji ñu ngi fii ci kër Jëmmu Njaay di dëkk boo xam ni laa ci histoire dairatul moustarchidina wal moustarchidaat kenn dootu ko naataam leeti mu di dëkk boo xam ni kii fi daan ñëw di maam Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum waaye jël ndigal li jox ko ki nga xam ni moom moo di Serigne Moustapha si almaktum mu di dëkk te ci wàllu géographique waaye nag ci wàllu spiritualité dëkk la boo xam ne tabaarakallah tey nag ñu ñëw fas yéene koo set setal fas yéene koo waajal ngir événement bi nga xam ne moo fa war a am le 10 décembre ah, ginnaaw bi nga xam ne Serigne Moustapha Sy joxe na ndigal li bu ko defee ñu daat koy mën a waajal ñëpp ñëw ci jàmm ba bu defee ñu daal di ah, mën koo fekke si jàmm mu ngi noonu mbokk yi eh, tabaarakallah kër jëmb di dëkk boo xam ne dëkk bu ñu bàyyi xel la moo tax mbokk ma yëkkati kàdd yee jëmale ko ci dëkk ba naan ko o oh, kër jëmb Peut-il jouer graphiquement, mais célèbre positivement. Loin visuellement, mais proche spirituellement pauvre en infrastructures, mais riche mystiquement. Une aventure entamée par Tafsir Alassane Bay, dignement poursuivie et gérée par Baïdiassé. Sainement, Moudir et ses frères assurent la léséance. Certainement, est un lieu de culte, choisi strictement par Mamcher, Ahmed Tidjanissi Al-Maktoum, où il nous a confié une mission fondée solidement que Sidi Mohamed Mustafa Si a su recevoir attentivement. Da'iratul Mustarchidina wal Mustarchidat sera le fruit évidemment pour sauver des générations qui ont failli se perdre péniblement et continuer à soigner les âmes paisiblement. Avec un guide infatigable qui bonifie tout humble, Sidi Mohamed Mustafa Si, une étoile qui brille éternellement dans les cieux des enfants gâtés physiologiquement psychologiquement. Eh bien, il vient d'ouvrir de nouvelles pages, Tiwawan. Là où le savoir divin se propage, son art triomphe de Prescara à Saint-Léo. Et les âmes honnêtes se purifient chez lui, sage réputé, même son silence instruit. Oh, cette lumière qui jaillit au point focal, en eau du minaret, cœur de sa ville natale. Un éclat vivifiant, Cœur de cap, la capitale, virevoltant. Il transcende la cadre loyale, évident que sans lui, notre vie serait fatale. Si élogieux, son parcours et seigneurial texte de mbokk yi mu ngi ñu bàyyi leen ngeen di dund mbégte mi. su la ker ga nag siiwal ko daa gën di wéeru si yow doo moroom day neen bu fekki neen ngir ker du suuluwaay dëppook sa borom te tax nga buur waay fàddu gaynde nag xajul ci tef nga la moytu leen rëbb yàlla nag diiram du moy si day jam wallaay yaa ëhla gaan nar sagulen kendo tunar nar ngir yéena jël wuru sa ngalam ko ba aha lox nah, eh daysa ada sopo jël mi sabayi loxo sa kaw tundon waaw waaw aha la ñàkku jëm sial yàlla ñu ya am yàggoon bayang baayam ya yàggoon ya na jaay Serigne Moustapha yàlla ñu la am yàggoon ndeyam baayam xarit yàggoon na jaay Serigne Moustapha ay tudd ña ko dëkk ñoo tax wolof ni ku wol mburu tudd dëkk mu mel kër jëmb ku ko tudd faw xel yi dem ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiallahu taala anhu ndax le 10 juin 1979 la njëkk a ñëw fii def fi waxtaan public bi muy ñëw ci waxtaan woowu am na ñu ko dogale ca Thiès ni ko sëriñ bi est-ce que doo dëpp ndax yoon wi ndox mi daf ko yàq mu ni leen comme jóg naa ba pare incha allahu dinaa àgg ba muy ñëw dañu doon fàq selaan yi di ko teg ci ndox mi pour oto bi man fi jaar mais yàlla ak détermination ak motivation moo tax mu ñëw place bee ñu defee jumaa ji foofu lañ ko njëkk a bamuy vous te pujum bay yëngu ma nga est-ce que c'est sûr Donc ko ma sha allah mu melni lolou nak mom commencé pendant dix années successives commencer at mu muy ngir yalla ak dundal wëllëre ngir ak mission motax keur Jëmb dafa place bu am solo dans لا حضرة التيجانية المالكية باسكو رود بينغين ديكيس كيف تدو موي اه تفسير الحسن بي بني فدنج افان كو دومم يور مخدم لو تي حضر شيخ الحاج مالك مو نيوان في تي جباس نغير يالاك ليغيال في الاسلام لولو كو اندي في تي جباس biñu démé ba ma sha allah lu ëpp ci ñom nek ay julit mu fexe ba créer link seen digënté ak tiwawan lolu nak mom le mom dem di wéy di wéy di wéy ba Serigne Cheikh Tidiane si ñëw di fi fekk ndono Tafsir Al hasan ñuy ay njabotam muy haji malik Mbey haji Ndiasse Mbey haji Mbey Donde Mbey ñoom la fi doon fekk di fi fekk tafsir al fami tafsir alxasan bay bépp mais bis moom sëriñ Cheikh toog na ci kaas bële ñaan ni élage kër jëmb yal nañ ko def fukki at te ndaw ñi donn ko waaw kër jëmb yal nañ ko def fukki at te ndaw ñi donn ko fukki at yooyu mu ñaanoon mat na parce que bi mu mujjee ñëw te ñëw ak ci la doon jaale ci njaboot gi loolu mooy fukkeelu yoon bi mu ñëw la mu ñaanoon ni ndaw ñu doon ko moo jur lii tey Serigne safaa def na ko defati ko te na mu ko daan defee na mu fi daan ñëwee bu Serigne Cheikh daan ñëw kër jëmb Serigne Moustapha daan na am une semaine Thiès bu ñëwee di campé Thiès saa yu bis bu ne mu ànd ak kilifa yi ñëw di taxawu tant bi ba ni kilifaam ñëwee loolu nag moom la ko yàlla faye njaboot gi tey. beneen bi itam mooy wax naa ko léegi seen yenn naataango man leen lettre de mission Serigne Moustapha kër jëmb gii lañ ko ko joxe ndax li ngeen doon doon xale dégg ngeen fukki atu dabaatal Serigne Cheikh dafa wax ni fii ci kër jëmb ni 68 ba 78 yàlla ndaw ñi la ko jagleeloon mais defuñu ci ludul révolte. mai 68 de la révolte juvénile un peu partout à travers le monde place Tiénène Menek Fep. Serigne Moustapha naka le dégg loolu ni ah man di fas na naa motax ba 88 jotee mu ci def esquisse de bilan ébauché ben bilan d'étape inspiré wu ca xutba bi nga xamni خطاب جعفر الصادق بمدفون تكنم يونتي صلى الله عليه وسلم كما سيكو كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأسنام ونأكل الميت ونأيد البنات بني مجاخي جعفر موتخون وحي يونتي بي نيكو فانغا ني جيلي فانغا كوغن نحن كوغ نده ليغا ني فكون ني اي نياوتيف سيرين مصطفى تخاو تي كانو سيرين شيخ نيكو نداو ني لا كوتي نك liñ la miinoon mooy bu samedi jotee yaa nga ca kolederaay ak night club yi waaye yooyu yëpp talatuñ ko ndax guddi àjjuma ak xadaratul juma ak yokku seen àlliwa Serigne Cheikh kontaan ci lool moo tax ñu ni lettre de mission fii lañ ko ko joxe ca année soixante-dix yi ba mu fa jógee bi mu jógee fii bi sëriñ Serigne waxee fukki atu dabaatal yi سرين مصطفى داني بيتوا وانا جل اي باجاجم دم دركله نخ نيل ني بروفيت شسوا يونتي صلى الله عليه وسلم ما كل جدو واي ميسيوم تي مدينه لا كوكما فلا فلا فلا غنا ماتي سرين مصطفى مومي جيجيتوا وان دم تنجي دم دكار دف فا كارتي جنرالم تي دركله commencé fay jëndjëntek intellectuel yek njabot yek ñep ba bi mi dem ba ag 85 de 79 à 85 fepp fuy région rek Serigne Moustapha def euh, fédération coordination ni avons fédération ci politique de 79 à 85 toutes les régions du Sénégal am une coordination motax le premier rendez-vous mo organiser ko ci xadra ci ziyaaru bu 1985 fédération yépp ñew wuyu Ziaru premier tam tamxarit en 1985 à Tivawan. Masha'allah, allah loolu nag mom lay ñëw di ko dundal diko dundal di ko dundal tadudok, dog nag na ko xam place bi ni mu avant le nettoyage ak biñu nettoyer. nettoyé bi nga xam ni ak mel nga xam ni la Cheikh waxone serigne Pape malik niko pas mën na lu doole mënul ni ko barke man na lu doole mënul ndax sëñ Pape Malick daf ko ni ah man de sëriñ bi bu kër jëmb jotee damay ñeewante El Hadji Ndiassé ndax ni bés bi toll ni mu ciy sonne mu ni ko sëriñ bi sëriñ Pape barke man na lu doole mënul mais ku ne xam na ni lii yàlla ak barke kilifa moo tax mu yomb nii kilifa googu nag ñu ngi ko ci ndokkeel di ci ndokkeel njaboot yi di ñaan yàlla ni ñu ko defee tey le 10 na mu ko ñaane woon ca Tiwaawan ne bu sañoon la ñëwoon ca le 18 novembre yokk le 10 décembre incha allah lii ñëw yal nañu yokk yal na ëpp la ñëwoon Tiwaawan yal nañu ñëw ci jàmm yal nañu dellu ci jàmm message bi nga xam ni moom lañ fiy jël si itam muy doon message bu am solo ndax moom léppam yiw la un missionnaire le premier, à la ah contexte bon xamni contexte politique le moment mission dafa universelle na waxe ko euh, chef spirituel chef politique le chef militaire chef spirituel chef politique le bu ñu chef militaire loolu n'a ka ko incarné ah mooy suñu sëriñ Euh, maam Cheikh Ahmed Tidiane si bi ñuy wax capitaine loolu ça veut tout dire tam wax ni c'est le capitaine de l'armée macha allah moom itam ñu koy ziar di ko ndokkeel ci li ñu jóge ak di ko tam ci mission bi loolu daal mooy li ñu bëggoon euh, li ñu doon dolli ci li ñu wax fële léegi di wu ñëpp nekk ci turu famille Mbaye ndax xaaju euh, Njaase li ko Serigne Cheikh waxoon ni ko élage bëgg dara sa njaboot gën la ko sop loolu sant yàlla la ku ne xam na ni lii rek la bëggoon bàyyu daayira la woon ci biir bàyyu daayira la woon ci biti àndoon kook ay magam àndoon ko ay rakam moo tax tey ñoom fee ñu tëdd Serigne Cheikh bu daan ñëw ca rawdu ba lay njëkk a jaar ñaanal mag ñi soog a ñëw fii Serigne Moustapha itam noonu la ko doon defee wat ca watit macha allah jërë ngeen jëf وللمصطفى في قلب جيلي بكى لها رفعة تدعى بأعلى المكان إذا قال جاء Jelos ya, main siang bang. Aman deh kayak la jaral ah ndax dañaa nekk si liggéey bi moo tax. koo mm-hmm. mm-hmm. jóge man waaw. Mm-hmm. ah fii moom liggéey nañ moom macha allah xol sedd na moom. ah ñëw nañ pour jëfe ndigal ndax amuñu ku dul a ah, Cheikh Seydi Mouhamadou Moussa moom moo tax lu mu wax rek duñ def lu dul fekk ko ci incha allah. Mm. Mi ñëwee gis di hmm. rek gën a santati suñu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha rek. jaay man fay la xadi la tudd xadi Cissé madame Diakhaté. nga wax ak sama doom baay la. waa Cissé soxna si. maa ngi tudd xadi fal fal fal ok ngeen jógee ba Diakhaté ñëw fekk si nettoyage eh, loolu lan moo def affaire. non benn yëg-yëg la bu ñu am bu nga xamante ni duñ duñ bëgg ñu nekk ci dëkk bi même luñ occupé occupé lu nga xamante ni sëriñ moo fi nar a ñëw incha allah googu tedd googu ñu bëgg a ñëw barkeelu le fait que poussière bi doo dugg rek loolu barke bi kii de kenn xamul lu loolu de nañ doon bañ a raté ñu nañ ñëw barkeelu ci luñ mënti def sax ñu def lu ndaw même bu ndawee sax ñu ñëw poussière bi dugg ñu ñu nekkandoo fee suñ mbokk pas-pas am ci yiw bi incha allah moo ñu. waaw bi nga ñëwee gis mbooloo bi ñu demee ak ni mu takkoo liggéey bi ñu cawat yow bi nga ñëwee ban yëgee nga ah am contentement rek ah xam ne ñii di ko def dañu am détermination du loo nga xam ne dañ koo def dañ ko def ak yéene ak ah, pas-pas parce que ku nekk tamit sa pas-pas yaa ko mën a wane te ci genre yi rek tamit ngay xamee ñi nga xamante ni seen pas-pas jaral na leen yenn yi Mm-hmm. yaa allah ak doole. Mm-hmm. bu baax. wóor yi moom bu amee jinne bu bëggee dakaar ku yëg daanu. programme bu ñu amoon dañ koy annulé. incha allah ñëpp ay xaar. pour le 10 bi ñu ñëw fii incha allah bi ci journée bu tedd bu seel ñu ñëw ko def ko ni ñu ko doon defee. xol yëpp féex bëggaat mu delloowaat def defal ko ni ko daan defee rek incha allah. kon allah. merci beaucoup ñu ngi lay delloo ziar bu baax macha allah. Abdoulaye fay maa ngi jógee Thiès. Mhm. waaw ah xanaa jëfe ndigal rek jëfe ndigal ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di ziar kilifa di ziar suñu kilifa suñu wasila euh, Mawla yaa Seex Sidi Mouhamadul Moustapha Sy di ko ñaan yàlla gudd fan lool gu ànd ak wér incha allah yàlla sàmm ko aar ko may ko mu yëgli mission bi euh, ci barke yonent bi sallallahu alayhi di nuyu capitaine bu baax ak maam Babacar. ak mbokk yim kàndal tawar kala ate nag am nañ mbégte bu baax a baax ak contentement bi ñu bokkee ci xéwal gi nga xam ne moom lañ suñu borom jagleel eh, ko ko ci loxo kilifa gi eh, suñu kilifa suñu responsable moral wax deug yalla eh, am nañ mbégte bu baax baax baax ñew bokko ak njaboti and ko ak njaboti fassé yéene ko téru inshallah euh mu nampatal ñu jox ñu ci lèr gi ci kàttanu yalla lool da mo ñu fi indi inshallah ba di rek di kontan rek xam li yombul ni li yombul wax dëgg yàlla ndax euh, bu yàlla xaree xol yi dugal la ci biir wax dëgg yàlla loo digle ñëpp jog loo santaane ñëpp jóg boole koog fier nag boole koog xol bu sedd boole koog cofeel gu mat sëkk doo ci benn coono yàlla xam na ko benn coono doo ko jëg xol bu sell nga ci àndal fierté gu mat sëkk nga ci àndal yàlla xam na ko parce que boo xolee mbooloo mi fi teew ñëpp gisoo kenn ku sonn fii nii wala doo dégg kenn ku ne damaa sonn wala kenn ku ne damaa tay yàlla xam na ko gisuma ko fi man. deug yalla te lepp ciofel moko waral nak yalla kilifa ah kon nak yalla yalla gëna gën taxaway bi yalla gën ñu def deug deug deug njabot yalla buñu gis suñu bop yalla buñu gis suñu bop yalla ñu doon deug deug njabot deug deug njabot inshallah allah. Mhm. ah lepp rek suñu kilifa moo ñu ko jara ndax man déjà bi may ñëw rek dama réer dañ ma waroon a fi wacc ma kër baara dama dox ba fi <laughs> yàlla xam na ko ne sant yàlla rek lépp kilifa gi mooñ ko jaral di ñaan yàlla yàlla mottali lépp incha allah dëgis naa fi ay sept heures yooyu waaw ah, ah. <laughs> eh, ah, dañoo kontaan rek ndax ku gis fii biñ fi doog a ñëw gisoon nañ ne fii fépp dafa bëri woon ay mbalit ak lépp te macha allah avant presque léegi onze heures jot pare nañ fépp lépp rek si mbaaxu kilifa ñaan yàlla tamit yàlla mottali lépp rek euh, internet sama micro baa ngi daanu de ayca <laughs> mu ngi noonu euh, comme je vous l'avais dit euh, lépp loo xam ni mu ngi fi rotandi daan leen ko dégtal bu sooba yàlla directement rek ma ànd ak mbokk mi nga xam ne moom laa toogal tey mu di sëñ Muudu sëfooru sëñ Moustapha bi ah ma tuddee ko noonu wala sëfoor du peuple. a taalibe sëñ Moustapha bi daal kase doy na maa ngi lay ziar Fall delloo ziar bu wér am nga jàmm sant rek bàyyi nga lépp loolu def sa liggéey lépp tout pour ñëw tey fekk si nettoyage waaw mais loolu moo wax hmm. waaw expliqué ñu sëriñ Moustapha bu soxlaa ñëppay ñàkk jinne soxlaa daxaar ku yéeg daanu ba jëru nga yéeg sax bay daanu ndax ku soxla moom soxla <laughs> saa sa yëg teg ci sa yëg ci bis tay bi lan la kontaan rek hmm. ndax nit moom sa kilifa. Hmm. li ngay ñaan bis mu ne mooy ndamam. sëriñ Moustapha moom kenn dootu ko ñaanal ndam dañ naan yàlla na ndamam di yokk. ndax ndam moom na ko pare. am na ndam ba bu soxlaa ku soxla ñàkk. mooy li paalin ni ko yàgg ndey ak baay. Hmm. mooy li xew. mais eh, jël naa ndey ak baay xarit ko baay. jox ko sax lépp adduna bi yëpp jox nañ ko. <laughs> lu ci def moo gën. ndeysaan eh, Modou. Hmm? nga bàyyi lépp loo def ñoo ko sànq eh, yëg-yëg bi ñu ci bi ñuy waaj bis bu mag mu di le mudi oh. ane bu ane bu jot daw yaakaar naa fii lañ njëkk def suñu suñu premier rencontre wala yow fi lañu xamanté won mm-hmm. donc ñukoy wajjar waajaat ci mm-hmm. eh, nak ngay le 10 bi daaw am nga ci lu graw nak expliquer ñu non waju moko dama paré <laughs> waju le 10 bi da nga paré paré na bu doon tok leen xaar fi ba le 10 sa barké ñent ma tok ba le 10 ko mo soxla fee dama soxla bok internet yi yéen ko dégg na ah. paré rek paré nga dal dem la sol ci mom bu ne aja rek sama dal mi tak na ko yag waxat ko dal di dem la sol bu ne aja paré na voilà légui expliquer histoire bi histoire bi c'est-à-dire euh ni mu démé won ah non dama don am ben mbokk ma don nekkal don faj sama bëri ci mom légui mu wara dem dëkkam and ak man quoi tombé ak Serigne Moustapha wara def conférence keur jëm bu daw bi ñu dem fa mardi ma ko vendredi nak damay ñibi parce que damay dem ci conférence ba mu ni ma bala bobu dañ ñibi ma ne ko incha léegi dem ba jeudi ci guddi ma ne ko suba suma xëyee damay dem ndax booba ñu ngi daara jolof mu ne ma ah conférence sëñ Moussa est-ce que jar na dem ma ne ko bu soxloon sax bopp du ma ko fi bàyyi wallaahi laa xam fa laa ko bàyyi ñu gis booba laa mujj ci moom booba laa ko mujjee woo booba laa ko mujjee dégg. ndax moom ku ma ko bëgg a xañ sëñ Moussa hmm. ma xañ la sama bopp. jox nga ko lépp. buñ bokkoon ndey ak baay bëggoo sëñ Moussa ak kum joxoñ yaa wóor de point rek sëñ Moustapha point. kese kese. mu ngi noonu ma jaajëfal bu baax. nuñ mel rek sëñ Moustapha la ñu am. waaw sa yóbbante lan la ak ñi ñuy seetaan à travers ci hmm? mooy képp kuy Moustarchid. Hmm. nga def li capitaine wax. Hmm. bi sëriñ ne ñu jéggal comme ça ñu yor liggéey. ñu yor liggéey jàmm. sëriñ euh, capitaine ni moom jéggaliwul. Ah, te ñun capitaine la ñu ndax dañuy sëriñ Moustapha góoram la. nañ ko bàyyi góoram. te moom ñu def ko muy suñu góor. kon nak lam bëgg ci góoram moko ko xam ñun nak liñ bëgg ci mom lañ xam kon lim wax lañuy wax ñu sol dalu dem bu neen ay cere ñu tak ci deggu ay way yow bu neen ay pare nañ waccay kay Moussa Cissé ko def Moussa da war di pare fu mu nay pare yor pass pare yoro pass pare Moussa Cissé wuru wér pare yoroo pare warul waaj daa war di pare du wacc day pare mat na sëkk <laughs> ko xamni bo waré def du la wax damay def eh. day xey rek ni la aja eh. fu fu fu mu ne fu nekk rek na la fekk ma jaajeufal waaw jaajeufati jaajeufati diko bëgg <laughs> boo ko bàyyee nag ma bàyyi la na ko xam tey. <laughs> non dama ko bàyyi. wóor na yàlla boo ko bàyyi ma waxaatee sax ma mere. waaw d'accord loolu jar na xeex sax maa ngi ma ngoog ma bu baax jaajëfal leen bokk internet yi donc ñu continuer ba léegi daal di euh, wéyal li nga xam ne waxtaan bi bon euh, précision li tax ma téye ni micro bi mooy damay bañ micro cravate bi war moo tax ma téye ko nii donc mu ngi noonu euh, ñu continuer wéyal liggéey bi jaa لديس ان شاء الله ген خيس في غير يوين البربي ين نيب ووتال ولين كير جنب جي سيري مصطفى سي دي نيو اك شان دو كورس بلغا خامني مان كو دون موميتام سي سيري شيخ احمد يانيسي تي نامو دون ميسيون با فوفا تي شان دو كورس موم سيري مصطفى noonu la doon ne mission bi fii ci kër Jëmb Njaay moo tax na ngeen daan def ca champ de ca Tiwaawan moom ngeen wonewaat fii tey ci kër Jëmb Njaay gis nañu fi waa Cees ngi fi ñu fekk fi ñoom ñëpp nag waa Jobaas gis nañ fi waa Tiwaawan ñoom itam ba tey ba Njaay ba Mbooro la ko wër ñëpp gis nañ leen fi gis nañ fi waa Tëngéej ñoom ba jàpp mbour ak lo ko wër ñepp a ngi fi lolu ngir yalla kaddu kilifa kaddu kilifa gogu ak barke kilifa gogu ak yiwu kilifa gogu yal nañ ko yalla boole ñun ñepp mu saawaan baawaan ba waxuma la yeen ñi fi tee waye ku ngeen bokkal mo xam muy mbokkum diina mo xam muy deret yal na yalla sédd len ci yiwu ngeen fi jele li ngeen def lepp nak xam ngeen ni ñu ngi ko def ci supervision suñu doyen Hadji sëriñ Ndiaye mu ngi ni toog ànd ak yéen poussière bi te suba ba tey mu ngi fi toog ak responsable yi nga xam ni yii ñoo fi teewal niveau national ñëpp bu ñu ci tuddee Hadji Diop dafa mii taxaw moom itam ngeen xam ni niveau national kon ñoom ñëpp teew nañu ñu fekk fi nag Magui Diobass yi Hadji Mbaye ngi nii moom itam dëkk Kër Baare gii ngeen fekk ko fi te fi ngeen koy bay Haji Jabel Guèye ngi nii moom itam jóge Thiès bokk ci les sages ñi gën a sage macha allah ca Thiès mu ngi nii toog moom itam Saliou Pouy mii ku ko gis xam ni waa Tivaouane ñëpp ñëw nañu yal na yàlla fay ñëpp yiw léegi laa nuyoog mbokk mu ñuy wax doomi Njaga Gay la doomi Njaga Gay xam ngeen ni kooku ku dégg kooku ku dégg njaga gay ci mission Serigne Moustapha si boo fi gisee njabootam di nga xam ni wàcce wàcce di wala kon ñëpp ñëw nañu te nag na ngeen xam ni lu ngeen fi def umpul Serigne Moustapha si lu ngeen fi def umpul Serigne Moustapha si bu dee jëf la ump ko bu dee kaddu la ump ko bu dee ñàq la ump ko tabaarakallahu kon moom lañ leen di bàyyil pay gileen yàlla di fay na ko jaarale ci loxoom moom Serigne Moustapha si moom mu jaarale ko ci loxoom suñu capitaine incha allah taala ba ñun ñëpp ñu jot yal na ko yàlla defee noonu. léegi nag am na oto yoo xam ne dañoo xaw a sori ñoom day dañ leen di yeewi ñu dem waaye am na fi nag ay ay ay ay ay ay ay diggante yoo xam ne yii bëgg nañ koo eggale ñi ci ñi am cawarte gi surtout dëkk boore Jobaas ak Cees gu soriwul gii. yenn jal jalan yi ñu ngi ñaan li ñu li ñu jot a jal daal nañu fexe ba yéwénal ko li ñu jot a jal buñ ko fi bàyyee ngelaw li da koy tasaarewaat nañu fexe ba yéwénal ko li ci des nag moom du ñàkk mbokk jobaas yi ñu ngi may dégg ñu ngi fi ñoom dinañ fi bis ni ki tey ngir mën a yeggale yenn poche yi nga xam ni yi des na fi ndax ku jur yërëm ku jënd sakkanal ñom wa jabas dal ñom amat nañu engagement bobu ku len fi fekk si waat itam ñu jël ku len fi fekk ci wat ñu jël ndax àll bi lepp dafa wara a leer yalla na yalla mottali yëpp kon bol xaaji sëriñ kaddu yaangi nonu li ma wax nak suñu kilifa mudir papa mbay mom tam mu ngi ci bir kër gi di dégg ma sha allah dafa ñoo doylo rek doylo sunu kaddu kon yalla na yalla fay leen yiiw yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla fay leen yiw kon ñu ànd ñun ñëpp jàng fatiha ak salaatul fatihi jox ko hadiya sunu sëriñ suñu wasiila sunu lépp suñu léppi fépp muy sëriñ Moustapha Sy jaareele ko ci suñu jëwriñ suñu capitaine yal na yàlla sàmmal ñu leen aaral ñu leen mottali seen yéene ci njaboot yi te mottali yéene njaboot yi ñi ñoom itam ci mission seen kilifa الفاتحة أكثر أكسرة الفاتحة بسم الله إياك نعم ay ca mbokku internet yu Mourchid FM Tivaouane 87.6 ak yu MBN TV euh, mbégte la ñu am bu baax a baax doon àndoon ak yéen euh, programme bi nga xam ni moo doon amee fii ci kër Jëmmu Njaay euh, mu di dëkk boo xam ni siiwul bu baax a baax waaye képp koo xam ni. da ngay dund spiritualité di nga xam dëkk bi di Kër Jamu Njaay ndax bi dëkk boo xam ne dafa nekk dëkk bu symbolique ci lii di mouvement al moustarchidine waaye lii ci tarixa Cheikh na Tidiane mu di dëkk boo xam ne chaque année dañ daan nemmaku kii di Cheikh maam Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum daan fi ñëw daan fi amal conférence yu ama am solo waaye itam comme ni ko tonton Makhari waxee sànq mu daat ci def benn précision bu am solo mu ni yàlla nañ koy def ay fukki at nee na fukki at ya mat na waaye itam Euh, da caa teg ca ñaan nga yàlla nañ ko def ay fukki at bu ñu paree xale yi yëggali ko tabaarakalla ah, gis nañ ni maam Cheikh kat ah, ba mu commencé fukk at matal na ko waaye itam ah, jox na ñi nga xamante ne itam ñoom ñoo di ndaw ñi ñoom it ñu daal di yëggale ndaw ñi ñu def ko noonu entre guillemets mu di Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha si ak ñi mu àndal mission bi tabaarakalla ginnaaw bañ ko nuyoo ba pare moom it ñaanal ko yàlla guddal fanam yokk wéram waaye itam yokk ay ndamam mbokk yi gis ngeen ko ni mu mel lieu bi set na wicc depuis ba ñu commencé ci suba ba léegi xawoon nañu jot nag waaye tabaarakalla mbokk yi def nañ seen kéem kattan ba daal liggéey bi ba mu daal di mat sëkk euh, bale nañ fii nga xam ne moom moo di bërëb bi fii nga xam ne fii la conférence bi di amee waaye itam nettoyé nañ alentour bi yëpp waaye itam nettoyé nañ li nga xamante ni moom moo di cimetière yi tabarakallah moo di euh, fi nga xam ni foofu la ñu denc euh, ñii di ñi nga xam ne ñoom ñoo di magi dëkk bi waaye itam mu di bërëb boo xam ni bërëb bu spécial la ndax lan kii di seex Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si fii la doore mission ndax jaayante ba fii la amee woon fii ci kër Jëmmu Njaay donc bërëb la boo xam ne képp kuy moustarchid képp kuy njaboot da ko war a bàyyi xel ni ma ko waxee woon njëgo njaboot bi ñëw nañ ànd ko ak mbégte ak contentement ñooy gis élèves yi ku nekk di bay euh, ku nekk di jox ñii di joxe ndox ñii di ñii di ratu ñii di ñii di bale ah ñii di daal ñii nu tudd ñii di euh, comment dirais je euh, di di lay voilà donc mu ngi noonu lépp pour daal di jagal li nga xam ni moom moo di liggéey bi te koo ci laaj mu ni la mbégte ak contentement ak fierté la ciy àndal loolu liggéeyu kilifa rek la waaye ñu ànd kook dal ak teg teggin ak sérieux sant yàlla mbokk yi kon nag mu ngi amaat nañ mbégte bu baax a baax doon àndat ak di leen dégtal li nga xam ne moom moo doon am fii ci kër Jëmm Ndiaye di jox rendez-vous le 10 décembre incha allah mu di bi nga xam ne si la conférence bi war a amee tabaarakallaa dégg ngeen kaddu yi oustaz joxe dégg ngeen kaddu nga xam ne itam eh, mbokk yi moom lañ joxe waaye itam dund ngeen ambiance bi di leen remercier di remercier itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw suñu thèse GG technicien alamin Diop di ko ak soxna Amina Ndjay ak li nga xamni ñepp japp nañ ci uh, liggéey bi uh, ba mu yëmbandi ni seen mbokk Mourchid Diatta Ndjay ngeen doon andal di leen jox dig dajé très prochainement inshallah allah di leen wax rester scotché li ci kanam moy dakk way leen di safo suñu ay programme inshallah rabbi lepp luy l'essentiel dañ leen ko dektel comme ni koy faral di waxé vos besoins sont nos priorités duñu ci jog ben yoon ñu jox leen dig dajé ba benen yoon inshallah rabbi ngeen